tey kër gi dama lay yàq ay mbiram la fan nga jaar fan nga jaar laa xamul ma man maa fi toog nga yuus ay man maa la ci explication ni nga ngay ngay dem sa yoon loo may expliqué eh, li nga may expliqué tey ñàkk fay lay ya, du loolu de bii paaxool damaa de kumba gaal mu naan takka sa fit takka sa fit mu tag mi takk fitam mu woo ah, la woo la nga ci kumba gaal yow dem ngir yàlla mënoo maa bàyyi ma takk sa fit ñëw ci yow xam nga suba ba oh, tey waxuma ndax dama ami problème problème xoonam oh, baawoon naa mari jaw baawoon naa mari jaw si tawi Marindago, njaago jotewtan man Marindago mari njaago la gën a dox baal mari njaago o dañuy sens baal mari njaago ah ko kee ko problème woo ci suba eh dama fa am problème 15 jours suba ba tey sama patron lay xaar mu wàcc pour ma ñaan ko dem yóbbu ko ki yuusa ki balla gay wala 15000 fii sax 15000 yow un wala 10 this, this, one horse. Yeah, where, where? Après, quelqu'un, qu'on faut, mal comme aïe. Descends mon pitar, qu'on a carré ou non. Nan de? Hey, alkaya min koje? Koje? Del, del. Yow comme que réglé naa sa problème kay, réglé sa problème. Problème lu mu doon? Da nga am problème? Mooy problème amour bi. amul baay amul suñu diggante maa ngi yow. amul na amul problème. koo dee amul deewaani amul bi de. dama la déedéet dama bëgg naa la xaar dama yàq bëgg naa kay kay xaaral maa yëkku kay kay fii rek xam nga ne patron bi day ne la xool man yow man xam xam nga nee na amour nga ma d'accord. waaw ah, d'accord joori kay defal ko formation bi. mooy tubaab bi boo mu ne boo bu boo ko buggee kii kii tam bugg na la après après. léegi man lan laay confirmer lan laay ma wax naa la ma wotana kam ƴeew goto bonjour o bonjour ban bonjour ana won tuubako waɗa anda o tadde yif xale yooyu kaay ƴeew o waɗini ƴeew dafa xale le par numa samorom dégg nga li ma la fekkee da ngaa ñàkk fayda man ñàkkuma fayda dégg nga li ma la wax de te patron bu ñëwee dinaa la sos at kaaso hot kaaso ana xaalis hot kaaso kaasa horaw wuy ma kaasa gis nga sama patron bu ñëwee dinaa la sosation yow di nga génn kër gi di nga ñàkk fayda sa kanam gu wow bii min a watta kam soosal min woni ñankatan ma haar kam wa wa soosa Wow. Men går ned till polisen i Kärreby, Hasselvik. Lite mamma. Bakın bütün dağında döküp o. Fırında hamile değeri söylese çaya bir bırakıp olsun. Şey bu dağında melikamı çakabı olsun. E, kolay o yanıma doyalı var. Koluma doyalı olsun. Yani yola bakalım olsun. Bakın, bu yaratı denime görsün. Hakkında götürmeler. Mene e kolan to mera şide mene de me kayo. Hey hey. Mera şide mera şide. Kene da bu da bunu. Hey hey. Kene da da bu da bunu. E. Kene kolin me da bu babu. Kene da bu da bunu. Ha. Ye ye ye ye mene ye. Kene da da bu da bunu. Hey yo pullar. Mene. Hey yo. Bu şibe değil ala. Mene. Akon bu şibe. Kene da bu bunu. kaw xool ni ma def. yaa yaakaar. Eh, man maay borom gi mais. ba ko def ko si ndigal ana ana ndigal ndigal. boo def saa ba booy. ndax ni ma def yow. kii donc dina pour toog mais li la la ba taxaw a mooy dem ci kër gi. tooy na eh. dooraat. kii toog dafa yàlla. da ko doog mais ndigal ndigal man li ngeen def patron pour lan patron naka jekk kii bi muy ñëw ci kër gi. non xamoon naa ne bu fi defee benn fan kër gi toj. mais nag kër gi waaw mais waxuma loolu ci. eh merde yow kër moo la tugal sama la yow ki kan moo ko dugal buur daal fekk na ma ci bunt bi ànd ak moom di dugg comment mën nga doon dugg ci kër gi ak kii parce que kii du nit bu ci kër gi da koy tax buur na ma dina dugg alors ana buur buur buur ana buur mais buur dàkk ko de dàkk ko kii dàkk naa ko toog eh, eh, buur sa dama xanaa xamoon ne kii mooy kii mooy jëkkër ci patron bi. te may juum. ah tey tey tey tey moom moom tey de. et puis dama bëgg a yàq sa dara wala lan. nga baal ma. baal ko àq gaaw may gis baal ko àq. mais bu ko simi mais footu ko. bu ko simi léegi dina ka footu. yow moom seytaan bu ngande ngay gàncax gi maram moo ko jël pour muy fatigué. nga baal ma xaw ma ndax yaa kay nekk jëkkër ma la. eh bàyyi dee sa lami. amoo dara la wax.

yow xam nga la gisoon duñ la jël. li nga wax na madame. maa ngi toogal nga liggéey toogal baax na. kaka wax dégg nga foofu bee mu baax foofu. xool li ma def mu eh, doy na. ab mooy madame mooy indi ku nekk ko. moom ma indi histoire bi. dafa am fii yàlla mi moo may dimbali def ka aate fii. పశ్చిమెత్తి రంగ బిమ్మిపకి ఎగపి ఎల్లది ఎవకే వను పాపు తమిదేమే దేమి బెరివా ఏ ఓలారి దొంగ తీసి పూతు బలిబిరే బొమ్మే తప్పుతో చెల్లిని సోత్ ఏదేమే వాగ్నే వాగ్ సికిరి బాబంగ తప్పుతో పోతుంగే మేరే కమ్మ బాముకో యో సాగన సస్సవాంగే మెలి పంపి దేమే వాంగే వా బాగన ఇదంగే మే డబ్బు డబ్బులు ఫీ dende campo. Perché dende te se balang di bocca ya, e che mi leno cat binde ya, camne. Mi gnu sulle bende campo. Ya, Magna. Male che che ne. Si abate in cofre. Dende di du du du in du du du tocco, tocco, tocco sì. 哇！这这两个的，那那这个没脸上挂，真该上。